groupe yépp ah boo ci dee xalaat dangay sant yàlla lool ndax boo amul woon ñu mel noonu yow yaay summeeku pour defal ko sa bopp waaye kon dafay mel ni sonn loo pour sa kilifa donc ku sonn ngir sa kilifa yàlla am lu mu la fayee waaw bu ko defee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanal képp ku ñu bokkal yëf yi yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñëpp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobilisé wu kenn ku ne à sa ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayra ñi amee parti politique ak ñi amee yeneen regroupement yooyu yëpp léeg-léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne fii ci senegal boo jógee ni ci Moustarchidine yi laa jëm luñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko mu Moustarchidine soxlawul kenn ndax yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé ñoom parce que ci de leen la ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu na sax du demati gërëm ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jaar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew di nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon mu dee doo ma recevoir nga boole ma ak capitaine. nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rekk nga xam ko waaw bu ko defee kon nag dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defe yàlla rekk a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu saf-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow soow soow man wóoroon na ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareegul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rekk ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari di tey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñoo nga ca mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au fond li xalaat lan la ndax yóbbante na wax ko ñeneen noonu ñeneen noonu waaw Déthié Fall ko yóbbante Cheikh Youm mu wax ma ko Anta babakar Ngom waxoon na ni fii lay gàmmoo xawma nag ndax mujj naa ñëw walla ñëwul bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu te dafa jaxasoo ku yebu ni tekk rekk ba xam lii riir fu mu jëm waaw yenn ti wax yeeg yenn ti tontonte yeeg du ko xaw a jar ndax bari na lu ci am ñuy laaj lu ciy sama position way fekk na duma mës a wax ci kër gi fii wax ni man nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man lañuy ñuy attaqué mais ça ne me rien ndax daf ma wóor ni ñi koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn koo xam ne dinaa la xool ba defa ne naw la nga pour man bu la neexee nag def seen groupe raggante seeni gannaaw dem woy ñu kenn xamul pour ñu di leen defal propagande kooku seen affaire la moi j'ai pas besoin waaw ndax yàlla ma defal propagande ba noppi waaw ko defee rekk ngeen xam seen bopp te ngeen gën taxaw